door Xaasim laay maa ngi door di san bu na may xol jox bi ay waay ci babé ci duwaay ban man na may yene war bay bay yow la bay bay jobaay waa bay jobaay laaw mara mara mara wala jëlee waay jooju xoolal waay. jërëjëf. sama waay wala jooju waara. bël. ma mara mara ba wala yawaale wala bëri wa ba si waay. jërëjëf merci. aywa mbokk yi ñiy suivre luttetv.com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko seetaanee démb rek. combat bi waroon a dox ci diggante Alioune Seye numéro 2 ak ñàkk jariñu combat bi nag mu jéewal am moo tax ñu déplacé wu ñëw fii. fas yéen waxtaan ak moom waaye nag dinañ seeti ñaq jariñu gars yi dañoo compliqué léegi waa kër ñax xaar leen ñu ñoo ngi ñëw mais comme moo blessé woon ba mënul bëre moo tax combat mu jul am ñu ñëw seeti ko masawu ko nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv point com ñu waxtaan ak moom ci li xewoon démb ak moom après fan la jëm nan la waajale woon combat bi yëpp dina ci ñëwaat ak moom maa ngi lay ziar gaynde gi waaw Lamine maa ngi lay ziar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di sant yàlla rek julli si yonent bi di sant suma ñaari waajur di sant suma sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kaboro borom Daaru Salaam ak Gaawaan mu yàgg fi loolu te wér di sant supporteur Alioune Seye numéro 2 yëpp di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex ak taysiir ba ak Cherafaan. naka yaram bi noo fanaanu. sant nañu baax a baax a baax a baax. nelaw nga depuis ban heure nga tëdd sax. <laughs> waaw démb guddee naa nag mais sant naa bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw. léegi balaa ñuy ñëw ci ci ci ci blessure bi démb bi nga génnee fii di dem stade gis nañ yenn image nit ñi bari woon nañ fi torop hmm. lan moo waral mobilisation bi nga xamante ne waa Guédiawaye démb def nañ ko derrière toi. waaw loolu moom duñ def leen lu dul sant yàlla rek ndax xam nga dañoo def lu ñu war a def yëpp préparer combat bi wax dëgg yàlla ànd ak suñu supporter ànd ak suñu mbokk ànd ak suñu xarit ànd ak waa Guédiawaye ànd ak waa Waalo. xam nga combat bi nag nekkoon combat boo xam ne dafa xam nga amoon solo suñu suñu carrière amoon solo trop trop trop suñu carrière xam nga moo tax ñu préparé ci côté yëpp demoon rek pour jëli ndam li boo gisee mobilisation bi ci koo xamante ni dafa toog deux années te xam nga gis nga mu demee mobilisation bi ñëpp génn ñëpp génn géejawaay ñu dul géejawaay sax génn xam nga dooleel ma kattanal ma dama demoon rek pour jëli ndam li mais gis nga jaam day bu gëmee yàlla moom mooy dogal bi ngay da nga demoon pour jëli ndam li bi ngay génn fii jëm arène ba lan nga doon yëg waaye li ma yëg bëri na ndax wax dëgg yàlla gis naa ay mag yu jooy gis naa ay xale yu jooy barke Seydina loolu sax moo ma jooyloo mais xam nga loolu yëpp cofeel la rek loolu yëpp cofeel la rek di sant yàlla rek xam nga di leen ñaanal yàlla yàlla kàttan na leen bàyyi leen ba ci kanam ak kanam ak kanam. Mhm. ndax wax dëgg yàlla xam far dafa metti daal far dafa metti far dafa metti te xam nga ki ngay dem xamoo xamoo lu muy fekki foofu noonu da koy ñeemantal moo waral jooy yeeg bëgg yeeg yëpp rek. Mhm. mais nag sant yàlla quoi. say mbokk nekk sa ginnaaw nga fekk say supporters ñu yéeg ci kaw tribune bi. fecc nga def nga say bagage yi nga waroon a def ci biti yëpp ba dara desul lu doon nga bëre ngeen dugg ci géew bi. Hmm. dama bëgg nga wax ñi lay suivre ci luttetv.com problème bi fan la jógee de A à Z. waaw problème bi fu mu jógee kay lu ne faa kenn du ko jeex moom mooy gis nañ ni ñu demee yaa nga fa woon te morom yaa ñëpp nga fa nekkoon na en direct la nekkoon xam nga ñëpp gis nañ la fa xew ndax boobu sax moom mooy deuxième fois bi ndax njëkk na ma ko def. avant ngeen dugg yaa ngi tooñ Alioune Seye junior léegi naan ko dégg naa police ba nga fanaan mhm. effectivement fa la fanaan ndax loolu moom moo nekk premier cas bi am na benn booy bu ñëw sotti sunguf mi misante woo di wër a sottee waaw ci biti lañ ma a sottee mhm. xam nga mu sotti mu sunguf ba maaju maaju ak Alioune Seye junior ñoo ko koj xam nga joteeg moom foofu noonu ba ba ba zemi bi yóbbu yóbbu yóbbu kii yóbbu Alioune Seye junior mhm. bi bi bi ñu mujj jotee nag boobu moom mooy bu mooy deuxième fois bi kon xam nga ne ñoom xam nga ñoom ñoo sooke lépp quoi waa ñoom ñoo sooke lépp. Hmm. waaw première fois bi ñoo réagir mais yow da nga bàyyi woon waaw ndax am na loo xamante ne nag xam nga moom moom du ko seetaan quoi waaw du ma ko seetaan te mbéjum kanam mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. ngeen dugg ci géew bi. waaw dugg ci géew gi. Hmm. mu demee. maa ngi def samay dernier réglage di def samay dernier bouteille mu romb ma maa ngi dégg nag moom mu naan ay dama saaga booy bi. mosuma koo saaga sama gémmiñ sax xam nga ku xool image yi sama gémmiñ ibbeeku sax pour wax ndax man miinu ma loolu tàmm ma loolu sama adversaire bi muy bëre sax du wax ak moom may wax ak supporter barki yaa rasuulullaay di caméra moo tax may wax loolu ba ma dalee bëri mbapat ba léegi laa mosuma jàkkaarloo sama adversaire naan ko dama laa dama kii bu dul ay jàkkaarloo signature te gis ngeen sama signature du ci wax du ci wax du ma ci leen lu débordé mhm. ma ci leen lu débordé sama signature gis nga nu muy demee gars yi doyal tàngal day def nii mais loo xamul xamoo ko xam nga moo tax nit dëgg donte dañ lay rey sax nga wax dëgg. mu ne man maa saaga booy c'est parce que ñoom xam nañ ne ñoo am toor ba pare. xam nga mu bëgg mooy aar foofu ne ma maa saaga booy bi barki yaar suur laay saaga mu ko. léegi mooy booy bi bi mu lay sotti gànnaay bi. yow yëgoo gisoo xanaa bi mu ñëw ci yow. non booy bi bi mu bi mu kii ma maa ngi maa ngi sentir mu ngi romb mais yaakaaruma ni dama ko sotti. ndax boo gisee ma maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy bàyyi xel di ko di ko di ko suuraale. Hmm. mu dox deux pas gestu sotti ma ko. ok waaw. mu la ko sottee. bu fekkoon ñax moo def loolu. du ko kii damay dem signalé ko arbitre ne ko gis nga ni moo sottee mhm. ñu def seen rapport mais kooku bokk lu mu amee lu mu sotti naka dem sotti ñàkk mhm. mais amul droit sotti ma dara waaw loolu tax nag xam nga te nit ku ne nit nga nit ku ne nit nga nit ku ne xam nga loo xamante ni xamoon bu waree demee noonu rek noonu lay demee mhm. mais dama ciy jéggóolu supporters yeeg xam nga amateurs yeeg promoteur ko dóor wala lan parce que man. fekk na ma taxaw waaw non di dama ñëw dama ñëw jàpp ko xëcc ko rek mu dóor ma. moom mu dóor la waaw ok. tamit waaw. moo la njëkk a dóor waaw moo la njëkk a dóor moo la sotti galaaj moo njëkk a dóor. waaw image yaa ngi fi. léegi nga tamit nga nga réagir. waaw ma réagir. waaw ma réagir waaw. léegi li nekk sa gémmiñ bi lan moo ko andi ku la buñ la dóor wala dañ laa jëm. non am na benn benn laar bu mu yoroon ak benn béykat bu ndaw moom la moom la moom la moom la kii moom la mu dóor. ci ci moment boobu noonu. waaw boobu. sa boobu santiroon nga. moom bi muy kii am na ay bagages yu bëri yu mu yoroon am na ci moto bu mu yoroon am na ci ñaar loxo yëpp am na mu ci la ko. waaw. am na ñu ne kuula a dugal de. Hmm? waaw ba tey ku nekk sa gis-gis rek. waaw. mais yow yow yow mi nga xamante ne yow la dal yow yaa ci wax. waaw mooy li ma la wax am na lu mu yor ci loxo bi. xam bay jën la yor ak laar man mi man mi jàkkaar la moom koy xam naa ne loolu la loolu mais topp bi nga ko doon topp nag sëy loolu est-ce que wóor na non instant boobu damaa gaañu damaa daf maa damaa sentir ne damaa sentir ne deret bee deret bee génn nag ma ne comme léegi comme comme léegi ndool am na pare hmm. aca léegi jeex na waaw waaw noonu loolu loolu loolu doo nga ma tàngal gisoo boo gisee bi ma génnee di dem jëli banc beeg yooyu yëpp tàng moom tàng deret bi génn moom moo moo moo moo ma yëngal te instant boobu bañu bañaatuma ci woon dara. Mm-hmm. waaw ndax damaa préparé sama combat ay weer. xam nga def ci li ma war a def yëpp ànd ñi ma war a ànd ñëpp ñëw ba jour ñëw ba jour ba xam nga ay détails di ma ko di ko yàqal du ma ko nangul kenn. Mm-hmm. waaw ndax dañ ma ko def defati ma ko. dañ ma ko def defati ma ko. ci ay combat waaw ci ay combat waaw. mu affaire bi mu amee presque stade bi yëpp wàccoon nañ ci ci ci ci ci enceinte bi. Mm-hmm. say supporter am ak yenn ci ay supporter am. mais est-ce que lu rafet la ci làmb waaw déggoo li ma la wax ne loolu ak kenn rafetu ko jekkul jaadul ci gis-gis waxatuma laa sax ci as askanu làmb wax dëgg yàlla ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sport moom bu boolewul warul tàggale. Mm-hmm. xam nga mais dafa ci am ay ay ñoo xam ne dañoo laxasoog seytaane dañuy ñëw fekk nit ñi di dox jàmm di wax jàmm ñu ñëw dugg ci raxal ñoom xam nga loolu moom mooy kii mais ñun daal li am ñu ngi koy ñaawlu di jéggalu promoteur bi. Mm-hmm. waaw kenn du ko rafetlu. waaw neexuma xam naa ne tamit neexu sama adversaire. yéen bëri amu leen ci part de responsabilité di ànd ak yenn nit yoo xamante ne dañuy dañuy yëkkati fitna. est-ce que loolu est-ce que loolu war ngeen koo nangu. non mu nekk sa camp mu nekk camp nit ñi yëkkati fitna mu beneen camp. Lamine du question de nit ñi yëkkati fitna ndax képp kuy uti jàmm ngay wuti xam nga mais dafay maanaam xër la xër xër xër gu métti yenn saa yi muy nit ki mu mu def loo xam ne sax bu ko def waaw mais kenn du ànd ak koo xam ne da lay yàqal kenn kenn kenn du am ko ànd koo xam ne rek képp koo xam ne teg nga ko sa wet rek koo wóoru la ku la jege la waaw xëy na nag coow bu amee nit ku nekk da koy am noo koy gisee mais gars yi ñu ngi naan ñii ànd ak mbëri ñi ànd ak mbëri dëgg la am na ñu si am histoire mais am na si ñoo xamante ni defar rek moo leen tax a jóg ba xam nga ba ba leneen fekk leen ci mm-hmm. te nag loolu moo ko àddu ñoo ànd yenn saa yi di nga bëgg lu baax ba fer musiba fekk la ci mm-hmm. waaw dem bi nga bi bi nga sumee ko nga gis adversaire sumee ko ngeen waroon a bëri su fekkoon bëri nga hmm. bi nga ko gisee. loo jàpp yéen ñaar ku ko noonu pare. du ko li ma la wax man ba ma jëlee combat bi li ma jàpp loolu laa jàpp ba jour ba lay xew xew. Ah, bi ngeen sumee ko nag da nga ko xool moom. du ñàkk loxo yi xool tànk yi xool abdo yi. kii liggéey wala liggéeyul. Lamine xam naa ne liggéey na kan mooy am Alioune Seye numéro 2 di tëdd di nelaw. kan ban mbër ba ma dalee bëre ba léegi ku ma am boo tëddee nelaw dootoo ko defati kon moom entraîné lu mu entraîné yëpp wax sa wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara. entraîné lu mu entraîné yëpp indi na physique normal. mais man indiw gisuma lu mu indi man li ma li ma entraîné rek laa gisoon te fas yéene fas yéene koo wan loolu dong la. lan nga gën a rëccu dem ci journée bi. waaw li ma gën a rëcc mooy li làmb ji amut ndax dama làmb ji dama ciy sonn daj ci ay coono yi metti xam nga coach Ron coach Zilba Souleymane Ba xam nga yóbbu ma asfa di ma entraîné xam nga coono yi metti Papa Boy Djiné inscrire ma saal xam nga may daj coono yu metti di ànd ak mafia karaab yi ñuy dem diin lundi ba vendredi xam nga di nook lu ne nga dugg ci xam nga coono yooyu nga daj ko boole ci jël sa alal def ci say mbokk sonn nga ñëw mu yàqoo noonu loolu du la neex. Mm-hmm. waaw man xam naa loolu neexu ma mais moom neexu ko. léegi bu ñu leen woo nag yéen ñaar bu fekkee aj amul. Mm. ñu woo leen ni leen fin fin de saison promoteur bëggaat na seen combat. non ñàkk jariñu dootuma bëre ak moom. lu tax. ndax mooy li may wax li ma wax léegi léegi léegi léegi léegi léegi nit nit bu la joxee cër danga nga koy delloo jox ko cër moo tax ma nangu bëre moom te ku ne xam na ne man maag ñàkk jar war ñoo bëre. lu làmb yëpp ñenn ñi si xam nañ ne dama war a bëre mais ñu si ëpp xam nañ ne maag ñàkk jariñu du làmb ci mais làmb moo toll foo xamante ni da ngay bëgg ñoo xamante ni duñ la bëgg te boo fi naree topp ñu ngay bëgg duñ la bëgg. fii ngay nooru newet fi ak làmb ji nu mu nu mu sooxee nii. Mhm. xam na kon c'est normal nga retour gratter am am noo noo noo noo noo def. loolu taxoon ñu jël ko mais da ngay dem ba ci biir gis ay business yoo xamante ni da dem ba sax di nga xam ne lii jaratul may benn booy sens. Mhm. ndax man ba ma dalee bëre wóor ba léegi kenn mësuma may sens man. xom lu tax loolu te man damaa bokk ci làmb. Mhm. barki yaa Rasulaay kenn mësuma may sens. man damay prouver di prouver di bëre di dem bay yéeg di jëlaat ñi ci suuf c'est parce que. ñi war a bëri man ñooy kii noo di indi ay ay kalma ñangaan te loolu du yoon man damaa bokk ci làmb mhm. képp ku ma tàllal loxo da ngaa war a mën a bëri man avant combat bi laaj naa la ne la est-ce que mosoo dem ba benn moment nga découragé ci làmb waaw lem dem nii la poussé waaw loolu mënut a ñàkk ci doomu aadama ndax di nga di nga di nga viser benn affaire affaire bi di def nii di def nii di nga dem ma ne waa man te maa bàyyi lii defi leneen ndax yàlla nag yar na beneen yàpp bu dul géej hmm. xam nga mais à chaque fois rek day am ñoo xam ne ñooy tëgg sa ginnaaw am ñoo xam ne ñoo la bëgg hmm. ñoo naa la mbër jàppal di la encouragé am na loo xamante ni da nga ko moom am na xam ne dañ ko moom si yow loolu dong moo tax mais xam nga noonu la demee daal mais yàlla baax tawfeex la waaw jën jeexul géej mu géej waay waaw jën jeexul géej laa waaw waaw ma ne géej waay géej waay ak Alioune Seye def waaw loolu moom sant yàlla la rek dañoo bokk ndey bokk baax rek di ndoo di dóorandoo loolu. am sa am combat mbëru géej waay yëpp nekk si ginnaawam. waaw c'est normal ji waaw. waaw nit ki moom li nga leble rek moom lañ lay fay de booy def lu baax lu baax day wëri mbokkam moo tax def lu baax rek moo am solo waaw booy def lu baax moom bul sonn muy naaj muy gaaw mu yéex danga koy am waaw li ñu naan booy ñaan jàmm day fekk ngay def jàmm. Mhm. waaw booy ñaan jàmm te doo def jàmm bu naaj bi doon génnee fii tamit. doo am jàmm mais booy ñaan jàmm day fekk ngay def jàmm mhm. si jàmm jooju lañu nekk séq ko ñépp nag waa géej waaye yëpp moo tax suñu jógee ñëpp jot mhm. waaw buñ la bàyyi woon da ngay bëriwaat parce que seere fa pare woon naa pour bëriwaat mais aja sa micro bi woon naa pour bëriwaat mais est-ce ngaa bëri nag non waaw non loolu instant boobu noonu xam nga tàngoor moo lay jàpp mais après da ngay xam ne yow mi doo mën a bëre ndax su ma demoon ci at arro su ma gisee day xam ne kii mënu bëre mhm. ndax lu lu dagg moom ba ñu ñaw ko kaat ñaw ñaw moom amaana loolu doo mën a bëre mais xam ak yaram bu tàng nii mooy loolu mais nag loolu yëpp sant yàlla rek. mais ak léegi pour jeexal ci loolu noonu. Hmm. ban ban pour yow ban taxawaay la ci CNG war a am lii nii. waaw taxawaay bi moom mooy yokk sécurité bi rek. waa sécurité bi moom mooy li may wax rek su bëri woon su bari woon amaana man su ma jotee ci booy ba pare ñeneen ñi duñu duñu duñu wàll si ndax dinañ leen mën a téye mais sécurité ñàkk sécurité bu doy moo tax man bi ma jàppee booy pare ñeneen ñi ñëw ñeneen ñëw làng ngee dagg làng ngee dagg mënatuñu leen téye. Mm-hmm. loolu la. avenir foo jëm. waaw fi ma jëm moom maa ngi dénk sama bopp yàlla rek nekk ci li ma war a nekk mooy entraînement yi suba ngoon guddeeg bëccëg. lépp ko bëgg bëreel. waaw ñoo bëgg bëreel bëri nañ ama neex Yékini Junior ah ok waa ji waa ji dóoraate nu mu tudd. Malick Niang Malick Niang waaw. Malick Niang waaw. Malick Niang bàyyi ko mu wax yóbbante gaal gën ubbi làmb. Malick Niang waaw. Malick Niang yow tamit. Malick Niang ba yaa ko tuddee kii dóoraate damaa bëgg mu dóor moom. comme gars day dóoraate. day dóore moom. buñ la ko joxee buñ ma ko joxee ma jël. ba Thierno waaw Yékini Junior. ma buñ ma ko joxee ma jël. loox ci ko ci bari ñu nu mu tuddee. kan. Mourou Bargny non Bargny. Quench moo moo ko teree neex. pare nga pour bëre moom. pare naa pour bëre ak moom. double moteur. pare naa pour bëre ak moom. Diène Kaïré. non Diène sama doom la. Diène Kaïré sama doom la. Ah. papaam waaw papaam suma sama. ah waaw waaw dëgg waalo waaw waalo quoi waaw. Ah. mais ku la jox nga jël. déggoo li ma la wax làmb fi nekk lam moo fi bàyyi képp ku ma làmb booleel ma bëre moom waaw. kontaan naa ci yow. jërëjëf Lamine maa ngi rafetlu sa bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla yow moom gaynde nga yaa ngi gérer affaire yi nice ñu ngi seetaan affaire yi interview yi rafet na xam nga commentaire yi sax gars yi dañ ciy waa mais ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf moom da ngaa yokk laam mais wàññiwoo ko te xàmmee mbër bu mag ak mbër mu ndaw gars yi dañ lay bàyyi xel ñu lay ñaan yàlla may la sa bopp rek defal la sutura defal la tawféex di ziar ñëpp rek waaw di ziar ñëpp fan si Alioune Seye yëpp du ma lim tur su ma limee tur rek damay jiw képp koo xamante ni maa ngi jàkkaarloo caméra bi def ci sama combat ci lu ma yëg ak ci ma yëgul maa lay sant di la gërëm di ziar ñëpp waaw di ziar ñëpp.